Baye Mass ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi nuyu internet yi ñuy suivre euh, ci Sénégo Kawtef ak fi nga xam ne moom mooy Seneweb fii ci euh, mariage ki nga xam ne moom mooy Fata ñu bëggoon xam déjà ban relation nga ma Fata ba mu jëral la ñoo woyal ko li nga xam ne moom mooy bés bi gën a bi mu gën a fonk waaw merci beaucoup maa ngi nuyu waa Sénégo Kawtef surtout waa Seneweb aussi mhm. ñett yëpp samay kër la donc Fata c'est normal teewal ko ah sama kilifa la mhm. donc déjà mu bokk si nit yi ma njëkk a jox cachet en tant qu'artiste déplacé ma def noo ak man talent d'or donc ku nekk xam na ne loolu du du léegi yàgg na depuis boobu aussi ñu am ay relation yu rafet donc c'est c'est vraiment normal bu amee bés bu mel nii ñu teewal ko <laughs> waaye moom am na bés waaye yow it yaa ngi waajal bés balaa may ñëw ci bés boobu génnee nga album de sept titres tuddee ko Hermas macha allah instant bi boo duggee ci les tendances mu ngi si déjà ñaata temps toog liggéey ko bon Air Mass ñu ngi ko liggéey depuis sama signature ci Impossible ah donc maa ngi signé en décembre la rejoindre Impossible Group. Mhm. donc ñu nekk di liggéey ci projet bi même bu fekkee am na ñaari sorties yu ñu def muy plus que parfait ak yëfu dof mhm. mais Air Mass liggéey nañ ko am na liggéey bu baax a baax te je pense liggéey bi mhm. porté na ses ses fruits. ci biir loolu Mina moom ku ko xam-xam ne jamono ji bokk na ci jeune talent yi nga xam ne nag bës bi dañ ko daal di gàddu parce que gis nañu heure bu génnee singal day ànd ak polémique moom moo koy choisir di ko def wala dafay ñëw rek tombeek li nga xam ne moom moo di actualité yi non du choix sax way neex rek <laughs> donc public bi di ko di ko accueillir quoi loolu kese la donc liggéey bu àndee ak euh, ndimbalu suñu borom. Mm-hmm. nit ñi dañ koy accueillir loolu kese la. Mm-hmm. voilà mais polémique bi parce que bu fekkoon dañ ko doon accueillir dund ko ci xor rek mu neex mais parfois dañ naan Baye Mass warul ci politique xam nga da mu tombé ak actualité nit ñi dund ko ci xol mais nit ñi dañuy jàpp ne politique bi wala danga nga far ci camp bi wala ci camp bële ba mu jural la li nga xam ne nag moom moo di polémique sa entourage. bon loolu li koy expliquer mooy engagement bi nekk ci suñu yenn son yi. sa ah se comprend parce que parfois dañuy engagé wu. e loolu duñ ko arrêté parce que tout le temps dañuy nekk ci côté population bi buñ ñu soxlawee après loolu noonu nag dañuy def musique comme tout le monde te yaakaar naa kenn kuñ ci mënul mënu ñëw ci quoi. mais mosoo jot menace. bon jot nañ ci lu nekk yëpp rek bu mu génnee moom dégg nañ ci lu nekk jot nañ ci lu nekk on est plus fort que ça effectivement. d'accord man ma bëggoon ñëw ci album bi mu génnee xam nga ni am na ku ko jënd benn kilifa bu ñuy Al Amin moom moo ko jëndee 10 millions waaye. bi album bi di waaj a génn ba mu naan benn nit rek koy am te 10 millions la koy jaay ñu bëri ñu ngi doon ne booy dafay rêvé wala nu mu demee noonu donc ambition boobu noonu fan fan la jóge ak gëm-gëm boobu fan la jóge est-ce que yaakaaroon nga ni réellement nit dina ñëw jëndee ko à 10 millions comme ni mu amee bon j'espérais plus quand pour dire vrai quoi j'espérais plus que ah. ça <laughs> liggéey bi liggéey bi nekk si si si si liggéey bi ñuy def liggéey bi impossible di def si masse c'est plus cher que ça ñun suñu musique moo gën a cher 10 li ñuy def si suñu musique pour réaliser suñuy lépp ëpp na loolu donc c'est tout à fait normal te musique dépassé na foofu boo demee si yeneen i réew da ngay gis artiste benn artiste streamé benn son plus de million millions de francs CFA donc c'est vraiment normal fii nii pour un projet de sept titres yoo xam ne artiste bi dafa tëju équipe bi tëju pour ñu liggéey ko ñu def ci plus que ça la musique toll foofu la industrie bi war a toll dañ ko war def pour jàppale artistes d'accord actuellement lan moo nekk euh, projet bi nga xam ne moom nga jël pour accompagner l'album euh, parce que nag boo defee vente bi ba pare ba noppi euh, donc accompagnement bi dafay war ci li nga xam ne moo di album bi sénégalais ak fans gën a découvrir li nga xam ne moom nga leen jox. waaw bon nañ xaar lu nekk instant bi moom comme neex na day gën a neex mm-hmm. dañuy waajal yeneen affaire déjà ñu ngi préparer tournée nationale boo xam ne mu ngi war a terminer la 5 août. fee ca CICES donc pour l' instant dañuy focus ci loolu ba pare mhm. après ay surprise ñoo ngi fi. Mhm. dama gis ci réseaux sociaux yi gars yi tuddee ko la bataille du 5 août. donc euh, sama waa ji NIMS moo ko tuddee noonu mais xam naa ni bataille euh, du du du côté négatif moo tax ñu wax ko positivement moo tax ndax dafa nekk ñaari jeune muy Vigie mhm. ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mass ñoom ñaar ñëpp ñu war a tëgg le même jour. donc yaakaar woon comme ay jeunes ngeen kenn dafa war a bàyyi dem jàppale moroomam. ba ci bokkee bu tegee ba pare keneen tëggee lu tax ngeen choisir yéen ñaar ñëpp tëggandoo le même jour. bon du du choix parce que man annoncé naa sama affiche cinq mois si ginnaaw. Mhm. def naa affiche publier ko même bu fekkee dama nekkoon si yeneen liggéey ba tax defuma si communication. Mhm. mais fii jàmbaar la quoi donc jàmbaar la liggéeykat la. Mhm. Mass aussi jàmbaar la liggéeykat la a chacun son public. donc kenn ku nekk war na mën a def événement te doo impacté keneen ki. xam nga fii nag public bi mënoo leen empêcher ñu créer ay wax si euh, donc voilà loolu la quoi. mais jàmbaar la liggéey. kat est-ce que nekkul la ñuy créer parce que daan nañ fi wax Wally Seck ki nga xam ne moo di di Diop ak Mass ñëw digganteeg mbagg ki nga xam ne moo di Vigie ah, ba tey ci showbiz la war na mën a nekk. waaye coow li mooy. ñoom ñaar ko ci feesal. non diiruma ko diiruma ko mbag <laughs> incha allah yàlla na yàlla def ñaari événement yëpp réussir. am réussite bu extraordinaire parce que Sénégal moo siy gagné diiruma ko mbagg man. dama yàgg wax sama génération loolu du samay wax. Mhm. man kenn mënu maa topp ci way ci sama génération mhm. amu si. Mhm. donc bu dee way rek topp ma ci way rek way yu neex. duñ ma ci topp. mais showbiz showbiz la dañu nekk ci benn terrain boo xam ne kenn ku nekk da ngay def sa communication pour euh, garder sa public pour am yow tamit li nga xamante ne moom si sa liggéey loolu nga ci bëgg. mais maintenant voilà li ma bëgg fan la teg ne moom bu dee way bu neex rek moom kenn di ko ci topp fan la ko teg. mais laaj leen loolu da ngay invité nga laaj leen. fan nga ko bon ñoom ñoo ko wax ah loolu seen wax la ko eh, waaw donc ñun aussi ñu ngi lay féliciter. merci beaucoup féliciter Vigie di la ñaanal yéen ñaanal yàlla may ndam parce que boo leen amee Sénégal bi. amiin amiin amiin yaa merci beaucoup